premier ministre ñëw fa muy premier ministre Amadou Ba mu doonoon une occasion pour relever loolu defoo ko nga sukkandiku encore ci règlement intérieur boobu pour defal ko motion de censure ne daal di daal di daal di participer ci déclaration de politique général waa su beneen premier ministre ñëwee lan moo fi changé premier ministre premier ministre la premier ministre mooy ku président de la république nommé constitution ne ko demal defi sa déclaration de politique générale lan moo changé ci diggante bi dara changé na donc cette affaire là député yi ñoo ko war a régler keneen waru ko régler parce que ñoo député assemblée nationale yi dem leen ngeen régler problème boobu soo leen ko réglewul sénégalais yi su ñu defaatee assemblée nationale bu bees dinañ am vigilance ba lu mel ni dootul amati mais bu ñu orienté responsabilité ne képp kuy député am nga ci responsabilité parce que député yi ñoo am l'initiative de la loi loolu dama bëgg ñu leeral ko bu ko kenn buux kenn soit dañoo yokk dara ci con ci règlement intérieur bi yokk boobu wala dañ see wàññi dara waa defal parce que dama leen di wax benn affaire loi soo ko voté député ba dafay yor këyitam projet lay de loi lay doon wala proposition de loi mu yor ko nga dem plénière nga dem commission ñu def ay amandement nga dem plénière ñu def ay amendement yow sa bopp loi bu ñuy voté da nga koy téye xam nga ko suñ ko publier promulguer ko publier ko xam nga ndax méngoo na ak li nga voté woon su dee méngoowu ko jëlaatal loolu nga dugalaat ko def sa proposition de loi ne leen delloo leen lu ñu voté woon c'est aussi simple que ça mais ça pas été fait loolu mooy dëgg te ñu ñu waxoon nañu ñoom la ñuy yëkkateendoo dóorandoo xaajaloo nañu kii jaar nii kii jaar nii la moo tax jour ba may toog fii devant vous di leen wax waxu yeewi askan bi ak duppari bu am ci biir résultat bi mu ngi noonu lii dara bettuñu si dem ba falu rek bedd ñeneen ñi la preuve gouvernement am na ana waa yeewi naxante rek ñu nag naxante yooyu nekkuñu si donc loolu dama bëgg ñu leeral ko maintenant nag fi ñu ñëwee ci act bu président premier ministre def wax naa leen ko léegi premier ministre article cinquante cinq moo ko tënk su réglement intérieur bi délai bi tëbee il n'est plus lié par les délais mais yaa am na délai yoo xam ne quand même moom war na mën a yàkkamti sax wane ne leen fii laa bëgg a yóbbu réew mi au moins donc warul élastique mais il n'est pas tenu par les délais donc su ko neexee mu def ko ci 3 mois yi su ko neexul mu bañ ko def ci trois mois yi waaye taxaw ne da ngay joxe ultimatum assemblée nationale defar leen seen règlement intérieur bi balaa la 15 fii ak le 15. c'est extrêmement grave constitution dafa wax tout mandat impératif et nul gis nga député même ko ko dugal ci liste bi ne dama bëgg nga nekk député constitution mayu ko mu koy jox orientation même électeur bu ko votel dañ ko ne votel ko pour un mandat mais moom moo lay représenté tout mandat impératif et nul te dans la constitution su ma juumul article 64 yow nga nekk premier ministre un nommé du président de la république membre de l'exécutif nga am barrière séparation des pouvoirs nga ñëw fekk waa député yi ne leen fii ak le bëgg naa seen règlement intérieur boobu nga xam ne sama yoon nekku si bëgg naa ngeen defar ko moo tax gis nga ultimatum bii su ko député yi nangu mérité nañ ñun ñëpp ñu dem jëlee leen assemblée national parce que su boobaa xamuñu seen rôle le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés c'est manque sérieux boo xamante ne daf ko am par rapport à nos à nos daf ko dafa doon loo xamante ne jalgati la muy jalgati yoon loolu nag dafa doon loo xamante ne ne jaaduwul ci réew premier ministre amul pour joxe ultimatum damay dégg ay observateur ak ay analyste ñu ne il est dans droit droits mais juste que lu mu wax ne da koy def feneen et moo kii waaye quand il est dans ses il n'est dans aucun de ses droits aucun nekkul ci benn droit am ultimatum boobu nekkul ci benn droit am te damay wax ñoo ñu di ko défendre ci loolu le 5 juin dans le communiqué du conseil des ministres ba ñu si bindee ne le premier ministre dafa toog conseil ministre yëpp ne moom day defi déclaration de politique générale au niveau de la euh, de l' assemblée nationale. ba mu defee arrêté yóbbu ko service yi secrétaire généraux yi ak ak ak ak ministres yi ne leen defal leen ma ay input. parce que article 55 dafa wax ma déclaration déclaration de politique de générale devant l'Assemblée damay laaj ñooñu pourquoi woowuñu ko wala waxuñu ne non monsieur le président monsieur le premier ministre d'accorduñu parce que règlement intérieur ba dañ ko falsifié lan moo leen ko tere woon wax waxuñu ko maanaam su demoon boobu ñu ne patriote la su demul ñu ne patriote la loolu nag réew di doxe noonu réew da ngay nekk sur des principes donc loolu ce n'est pas normal rawatina nag mu ne da koy def fene di nga constitution article cinq waxul rek na def déclaration de politique générale dafa wax na ko def devant l'Assemblée nationale bés bu ko defee en dehors de l'Assemblée nationale tuddee ko déclaration de politique générale ñu constater un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal parce que mënoo xeex les institutions ñàkk respecter les institutions bëgg a nekk à la tête d'une institution mënul nekk moo tax loolu ñu wax ko mu leer nekkul si yoon du rôlam waru ko def te ñàkk respecter institutions yi mooy ñàkk respecte sa bopp parce que nekk premier ministre nag tax nañu jox la cër fi lu bëri te loolu institution yi yi nga war a respecté wala ñun yu ñuy respecté moo tax donc jàpp leen boobu respecté wul institution à travers son comportement respecté wul les sénégalais ñu tax respecté wul les am na xeex yu bëri yi ñu koy xaar. xam ngeen ne chômage bi tàll tar na de te waxoon na projet bi dina ko régler xam ngeen ne problème souveraineté alimentaire c'est un problème xam ngeen ne problème mu santé bi c'est un problème problème éducation bi problème la Sénégal màgget la fépp ay metti ñépp di ko xaar ci loolu moom mu bàyyi loolu dafa mel ni rek koo xam ne da nga war a dem